salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum képp ki nga xam ne yaa ngi may seetaan El Vision Média nee naa leen Sénégal lépp teranga la ba tax na su may nuyoo rek damay daal di jël sama lekk rek daal di wesaare sama nuyoo tey nag boo leen ma gisee fi ma taxaw maa ngi fi nga xam ne euh, laa nekk mu seet si ñi nga ne ñoo nekk Prince Family euh, ñoom ñaa seet si tey def li nga xam ne moo nekk seen euh, joxe ndogu tey nag mooy ñeenteelu li nga xam ne ñeenteelu at ñu koy def di ko feete léegi nag damay daal di dugg ci biir rek xool tey nan lañ koy préparé ak tey nan lañ ko defee sama caméraman bu ñaawal bi topp ma Seydina Muhammad rek laa yaakaar yow man xiyaama bi waaye. nee na ma nii maa bëgg Muhammadu Rasul. ñu ne ko mais Maodo cinquante mille mosquées yëpp a ngi naasiril xaq bil xaq ci sa ndigal nga ni bëgg yonent bi rek laa yaakaar ëllëg waaye. nee na ma nii maa jooy ci Muhammadu Rasulullaay. Alaaji Malik daa ni walaysa li amalun alqaaka ya amali siwa almahabbati wa taadimi wa salami waaye. man soo soo maalik wal bayaa Haji Malick nee buma deme ci kanamu yalla yalla ni ma Maodo lu àndaale dama na ko ñet ban ak ban muy bëgg yoonent bi te muy dëgg ak tag yoonent bi te muy dëgg ak top ci gannaam lu mu wax ma ne waaw kon nag zazun hina tazkuru hubul quraani wa ashaabi karami ñu lay ñaanal yalla bàyyi ak sa xam-xam bu baaxa baaxa baax kullu ku fi toog rek xam naa ne ni sama xol sedde noonu la sa xol sedde kon nag yal na la ko yàlla fay e ñuy gërëm usaas ndax sànq dama am mbetteel bu rëy a rëy ñu ànd ak dégloo tuutiwaay ndax sànq dama am mbetteel bu rëy a rëy ndax e, ñii nga gis ñu jàkkaarloog ñun ñuy waa El Vision yi e dañ maa defal mbetteel mu rëy ndax seen directeur la ñu àndal muy alaaji loo mënoon a ñëw sañse kom ñëpp teg la ay tànkam toog waaye dafa sol tëneem ñëw ne Bamba damay ñëw ngir liggéey ndax jaral nga ma ko ànd it ak soxnaam soxna yit ñëw ne man it damay liggéey ànd ak Serigne Saliou mi ñu jàkkaar lool nekk ci caméra bi eh, mu nekk lu rëy lool ci man mu nekk lu kawe ci man may ñaan nga ñaanalal ma leen bu baax a baax a baax ndax fim mu toll nii sa deun tàng na ci tag yonent bi alayhi salam ndax xam ne yalla sunu borom mu ngi lay deglu te bo len ñaanale ñaan gi dina dal ma bëgg nga ñaanal len ba fepp fu ñuy gis télé ci aduna rek yalla dimbalé len ba seen télé bi ag fu kawé seen njort ndax li ñu def ni ngir man reyna lool ci man barki alquran reyna lool inshallah xamna bu soobe yalla bala ngay pare rek nga defal ma len ñaan bu baaxa baaxa baax eh, ñu jall nak ci laaj yi nga xamanteni mom mo fi jotta tew waaye man fi may démarrer laaj bi ndax sànq ci sa biir waxtaan eh, da nga ko tijjee waxtaan boo xamante ni dama cee xaw a sàcc pexeem jigéen ci biir loolu ma gis Serigne Bamba eh, wax ci benn xasida goo xamante ni si ci ndaw luy wut xam-xam ma dégg mu naan ko naahil kawaayi bawal xawali ya waxtasin in tatlu min xaamin rada laa taslamu eh, mu mel ni jamono jooju la doon wax wala jamono ji ñu nekk nii moom lay wax اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جيرجف خادم ci laaj bu am solo boobu nga xamni ne ko jele ci bindu suñu mam Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasul radiyallahu anhu moy wax ni ay conseil la don jox ki bëgg xam-xam tay naw ay conseil la don jox ki ki bëgg xam-xam tay naw fan la wara tek tankam wax ji sax commencé wul fofu ndax kun kaatiman li durri la commencé nekkal na nga nekk ko xamni da ngay nepp ay naqar baña bari jambat ku ngeen fekk muy jambat 24 heures sur 24 bu la ñaanee sa doom bu jigen bu ko may ndax amul jom mako wax jambat baaxul serigne touba neena del nepp say naqar di nëbb yi lay metti ba nit ñi yaakaar ni yow jeexaloo dara ci loolu la yàlla sukkandiku jox la lépp mais koo xam ni rat jàmbat guddi jàmbat bëccëg sëñ Tuubaa nee na boo ko def beneen bi mu demaat ba ci biir comme dama koy tënk bayti bi rek laa bëgg a firi li mu laaj mais li li mu commencé laa bëgg a andi terminé fi mu teere beneen mu dem ba mu yàgg mu ni mu ni yow mi bëgg xam-xam na ñeme xiif waaye bul bokk ci ñi toj ay restaurant ngir bëgg añ comme suñu mbokk yi tijaan yi toj restaurant yeeg ngir bëgg añ Sëriñ Tuubaa nee ku bëgg xam-xam da nga ñeme xiif ndax xiif bu dégagé woo ci la xam-xam di installé nit ki xam-xam di dugg ci moom du fekk mu xiif rek la koy fekk loolu jàngkat yépp xam nañ li may wax Sëriñ Tuubaa ni kon na nga ñeme xiif door a mën a sóobu ci jotaayu ci géeju xam-xam mu dem ba mu yàgg mu ne ko nag pour nga mucc nag nee na na nga moytu jongama yi boo tollee ci jàng Sëñ Tuubaa waxat waxuma ko de waxuma ko na na nga moytu jongama yi ak njagamaar yi na il kawaaxiba wal xawaani in tadun minha min ridan laa taslam mu tëjee ko ak oh. fa yal nañu yàlla mu ni <laughs> non mag ñee baax ñun soxlawuñ Karl Marx doyuwuñ ko tus luñ koy dee ay Karl Marx ay nit si xawma kenaan Dieu mort xawma nit si xawma waaw ak ñoom ponkal yooyu Socrate ñoom Platon Platon xawma Plat Plat Platon Socrate Aflatun Socrate Euh, kii le les Grecs nu tuddati ponkal yooyu ahlul yunaan euh, soxlawuñu leen ndax li leen manqué ñoom li ñu xam suñ mag mi dañ koo xam te ñoom dañoo am lu ñu manqué te suñ mag am mooy ñoom xam-xam rek ci lañu xuus xam-xam rek xam-xam ay philosophie lañu ay ay lu nekk dañ ko dem a découvrir mais dafa am leneen lu ñu amul mooy leer mooy seen ruux dund seen yuur mooy dund te mag ñi seen ruux day dund di leen alimenté leer yoo xam ne rabbaani lay doon ci yàlla lay jógee direct loolu la mag ñi moo tax ma ne doy doywuñ dara ñoom Karl Marx ñooñu Sëriñ Tuubaa nee na bu ma la tegee ci yoon wi nga àgg del affronté nee na del xiif del nëbbu say musiba bul bari looy jàmbat na nga sëgg ci li la tax a jóg ba mu yàgg mun la bàyyi fi jong may dañ lay tardeel boo demee ba tekki bu la neexee takk ñeent ñeneen taxaw ko bëgg nga takk leen waaye boo tekkiwul dañ lay tardeel sëriñ Tuubaa ko wax de mu ni nag li ma ci gën a neex mooy man Bàmba laa tashtari dunya bi uxra bul jaay àdduna jënde ko àllaaxira ndax man baa nuuran biddu jaa fa sa yëndëm ku jël leer jënde ko lëndëm di nga ko réccu تمي سا ادنا يقل سا خير ولا سن لو يقل سن على ما يا مالا nek du joxe ndagu bi nek moy sen ñentelu at euh, ñukoy def euh, diko fété damay daal dékk sama micro soxna ci rek mu wax ma tay lan la yex ci bëksi euh soxna si nuyu na la ma ya ngam jam jam baax baax waaw ñu ñew fekk la fi ngay joxe li nga xamne mo nek euh, ndogu li bi ñenti at ngeen koy fété ah sante yalla rek sante yalla bu baaxa baax bi ñentel at ñukoy def te ñaan yalla mu yokk te ndax yaakaar naa ne bañ koy def ba léegi ndam rek lañ ci jëlee kon ñu ngi sant yàlla bu baax baax Euh, bëggoon naa xam kan moo nekk seen ginnaaw euh, lii ngi nga xam ne ñàkkul mu am koo xam ne mu ngi seen ginnaaw euh, da si def xaalisam wala yéen rek waa prince bi yéen a koy def. non yàlla dogal na nag suñu doolee bopp la ñuy demee kii moo waral prince family muy DJ prince ci ndimbalam ak ndimbalu waa prince family ci la ñuy dox ñun ñooy demal suñu bopp boobu ba léegi waa macha allah yéen a ko damay da dekk sama micro ki nga xamne mo eh, moo waral lii tey eh, presse ni nala ma ngi lay fay soxna si. ma ya ngam am ma ngi sant yalla bu bax a di nuyu waa El Vision bu ñu len di ziar. waaw tay ñu ñëwoon feetale fi ngeen def li nga xamne mo nek nekk joxe joxe joxe ndogu eh, tay ñu ñëw fekk la fi ngeen def li nga xamne mo nek conférence bi tay lan nga yëg ci bëss bi nga xamne tay da nga dajalé ñëpp ñu daal di ñew wuyu si la tay lan nga yëg ci bëss bi. sant rek sant yalla bu baax ndax li ñu wax wër wi mom weer wu màgg la weeru weeru weeru ngëneel la weeru xéwal la weeru sutura la waaye weeru barke la euh, kon bu nu yàlla mayee xel ba nu mën a dajale donte bu dee juróomi nit la sax jox leen ñu xewlu loolu sant suñu borom la waaye nag di gërëm waa Prince Family teg ko ci loxo seen présidente mu di munaas mii nga moo doon wax léegi nekk jàmbaar jigéen ju mën góor ndax gannaaw yàlla lépp moom la euh, li may wax chaque jour rek moom mooy sama lépp ndax moom mooy doxal Prince Family du man ndax euh, ay yàlla bu dogalee ay nit bëgg la du sa du sa daraja du sa xam-xam du sa dara suñu borom moo ko dogal mais moom tamit mu nekk ku baax jàppale ma ci lépp ci zaahir ak baatin di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal ndam te ndam lay am chaque jour ndax xolam moo tax kon bés bi ma dama ci am mbégte ndaxte du ma ne bulet ndax looy def ay at yaakaar naa ni du hasard te lu dul dëgg du yàgg kon lii dëgg la mu teg ko ci njub ak dëgg nag moo tax muy am ndam chaque jour man fu ma su ma ñëwee su ma neexoon mun na naa toog def nii du ma def dara waaye nag dafa du rafet ndaxte ay nit bu la yàlla boole ñoom ñu bëgg la yàlla jaaloo ko ci télé wala rajo gënoo leen bu ñuy def dara da nga war a sol sa dàll futteeku nekk ak ñoom ci liggéey ba mu jeex tàkk waaye man maa leen di amal ngërëm ak cant jaar ko ci loxoom. macha allah yéen a ko déggandoo waa El Vision Médias euh, kenn ku ne xam na ne li benn liggéey yombul lépp rek moom moo metti léegi mu nekk li nga xam ne mu nekk ñeenti at ngeen koy feete euh, ban jàll gàllankoor bi nga xam ne yéen a ngi koy am est-ce que am ngeen ñi nga xam ne ñoo nekk seen ginnaaw comme ministre wala président wala keneen ak keneen mu siy def loxoom di leen jàppale waaw loolu moom amul moo wax dëgg yàlla ñun moom xaaruñu président xaaruñu ministre xaaruñu dara am na nag ay bonne volonté ñoo xam ne bëgguñ sax ku tudd seen tur yàlla boole nañu ak ñoom kenn rek laa ciy cité ñoom c'est un frère mu di Diop nek euh, le euh, plus jeune maire du Sénégal ni ma ko tuddee sama frère la man sama sama frère la euh, nek ku baax gis ñëwul waaye amna na ku ma fi yónnee donc kooku sama frère ñëwum wareef la té li tax moy ñëw nañ goxam muy Pikine parce que ñun chaque année dañ koy toxal daw xawma daw daaw muna suma naa su jumul si lañ andona ak ambassadeur u Palestine donc ñun li def defuñ ko pour dem ci kenn nako kay dimbalé ñu en fait dañ koy def les kuñ ci fekk ñu xamné non la mais dolay Prince Famille la maanaam jàppal ma jàpp gi munaas day am alalam def ko bépp membre Prince Family alalam mu ngi ci lii muy man muy keneen ñu dajale ko ki ku ñu ci fekk si nag ñu ànd ak yow ah def ci def ko ci yàlla rek tax mais wallaay lazim amul autorité buy taxaw fii Sénégal di wax ne dimbale nañu wal noo amul ñun suñu doole bopp la ñuy demee te dañ ciy sant yàlla nag di ñaan yàlla di ñu gën a yombal ñu koy gën di jëfe waaye lépp président bi la ma koy wax jërëjëf macha allah yéen a ko gisandoo ba tey may ànd ak waa El Vision Média nee naa munaas mi borom El Vision Média la ndax day suivre li nga xam ne mooy nooy mooy too sa noonu macha allah ba tey nee naa du ma bàyyi benn yoon ah damay doxantu rek xool yaay faal yi nekk fii xool baay faal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ñu wax ma tey la ñuy yëg si bés bi jaajëf sëñ bi nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna si. tey ñu ñëw fekk la fii. waaw ñu am fii benn manifestation bu ñu fi am donc dañu profité rek di nuyu àdduna yëpp di nuyu Sénégal yëpp di len balu ak ci weer bi tey sàkku ñaan ci ñom aussi di nuyu wa télévision bi ñëw fi di Elvision Média di len ñaanal jamm aussi tey profito rek di di di di di di len encourager parce que ma ngi suivre sen sketch yi ngeen di def ci weeru koor bi donc yépp ñu ngi koy suivre di len ci encourager tay fi ñu ñëw 6e édition la weeru koor la dañ koy def chaque année donc man ma yor comité d'organisation bi ñu yor ay cellules yu bari nak secteur bu nek

maa ngi lay fay bu baax. yaa ngi am jàmm maa sant yàlla bu baax. waaw euh, tey ñu ñëw fekk la fii li nga xam ne mooy joxe ndogu bi euh, tey lan nga yëg ci bës bi ak ah, bëggoon naa xam tey ah yow lan nga si bés bi ndax li nga sol macha allah dafa rafet. <laughs> merci gis naa la yow laay jàppale waa man membre laa ci biir association bi rek. waaw ñu kontaan am mbégte am bànneex parce que euh, joxe ñam dafa baax rawatina weeru koor donc dañuy sant yàlla di ñaan yàlla yàgg ko fekkee. gàllankoortal ba yàlla dina may aussi lu ñu ko mën di ko defee chaque année. toogu ba suur ma ñëw fekk ci ki nga xam muy sama xarit di sama papa di sama jëkkër muy kan euh, ñu koy wax bamba ñu gën koo xam ci docteur docteur nuy naa la siyaar bu baax euh, sista zeyna son chéri di la ñaanal jàmm te di ko ci yow di la wax ne la gis nga tey comme ni ko prince family defee di bis boo xamante ni si euh, bii mooy quatrième édition bi parce que biñ ko njëkkee def ñu ngi ko defoon Liberté 6 yàlla dimbale ñu euh, ñu dem Sicap Mbao def ko fa ala dimbale ñu ñu dem Parcelles aussi def ko fa ñu ren ñu ñëw fii ci Pikine ànd ci nag ak suñu grand suñu xarit koo xamante si euh, Sénégal da koy bàyyi xel muy Mouhamed Prince di borom Walfadjri di nit ko xamante ni si euh, animateur la mais dafa nekk idole ci animateurs yi parce que du dox ci lu ñàkk fayda doo ko gis tamit ci lu ñàkk fayda donc ku mel noonu su dee lu ñun ñi nga xamante ay ndaw lañu bëgg a baax dañ ciy sawar moo tax ci lu mu ñu woolu nekk rek lu mu ci lu ñu mënti jàpp dañu koy bàyyi eh, nekk ci te nak yàlla dogal na ni ànd bi mu ngi bëgg a parce que lu lu dem bañ ay ay at la loolu du du àndu benn fan du àndu ñaari fan donc mu jaar ci ay loxo yu bari ba tey yàlla indi ko mu nekk ci loxo Maimouna Diouf ak équipe bi nga xamante ni la àndal ndax dama naan Prince Family amul amul amul bureau amul dara ñëpp ñu ngi ci biir ndax liggéey la boo xam bu commencé ku nekk da ngay dem xool wàll ba nga mënee rek nga nekk fa jigéen ñi ci bi ak euh, Mariama Zadr donc ñooñu ay jambar lañu yeneen soxna yi nga xamante ni tamit ñoo nekkoon ci terrain bi ci ak góor yàlla yi nga xam ne soo ba léegi ñu ngi fi bàyyi seen yiite xam nga di ci def seen alal di ci def seen doole xam nga donc ñëpp dañ leen di ñaanal yàlla suñu borom may ñu kàttan ak tal ban mën ko fekk ay at yu baree bari ndax dama naan ànd bi du àndu du ànd boo xamante ni àndu hasard la comprendre ndax association bu bëgg a def ay at te ñëpp bokkuñu fu ñu dëkk te saa yu ñu wootee ba waxtaan rek kàddu gi benn lay doon donc loolu dañuy ñaan yàlla yàlla sàmmal ñu ko aar ñu bàyyi ñu ak ki nga xamante ni moom la ñu booleel muy Mouhamed Badiane yàlla it may ko kàttan ba li mu bëgg ci métier bi yàlla dimbali ko ren nag mu amaat beneen innovation bu bees euh, ñu ànd ci ak waa Elvision Média nekk chaîne boo xamante ni macha allah bi nu juddoo yàggut mais yaakaar naa àdduna mu ngi leen di bàyyi xel ndax euh, chaîne bu amagul un an di am ay 50 000 abonnés xam nga di am ay vues c'est pas évident donc nous dam leen ñaanal bu baax Yalla sam leen li bëgg Yalla jappalé leen ci di directeur général di Aladji Lo di nit ko mu sol euh, dafa am lu parce que mënoon na ñëw sañse comme ay moromam xam nga wane ne man borom dara laa mais deful loolu dafa ñëw sol tënim ne ma tey damay liggéey donc mu nekk lu ñu lu ñu rafetlu lu di la bëggee yow it soxnaam yow it yàqoo ci dara ndax bu la neexoon nga ne ko demal nga sañse dem toog croiser les bras xam nga mais defoo ko di gërëm tamit Saliou mi nga xamante ni moo nekk ci caméra bi ñu ngi gërëm ñëpp daal ñi ci jàpp ak ñi ci jàppul gërëm nañu ñëpp képp koo xamante ni dama naa la bësal foofu sa loxo rek ma daal di ñëw waa El Vision Média mbokku internet yi xam naa war ngeen a xàmmee eh, kii nga xam ne moo nekk docteur war ngeen koo xàmmee tey nga xam ne def na ko ci ndogul ñu ñëw fekk la fii li nga xam ne mooy nekk joxe ndogul bamba artiste nga ba pare ngay def li nga xam ne oh, moom moo nekk ñaw tey ñu ñëw fekk la fi nga nekk ci li nga xam ne mbiru yàlla dong la yàlla rek la ñor tey lan ngay yëg ci loolu waaw yëg-yëg bu bu rëy lañ ci am parce que dañu naan doomu aadama bu nekk rek am na luy nelaw ci yow donc te liy nelaw ci yow yàlla dafay dogal mu jaar ci ay nit mu yeewu mën naa ne aar bi may def xam nga peut-être yàgg na ci man yàggut mais ay nit ñoo ko yee mu yeew bokk na ci ki ma lim léegi muy muy El Hadj ak euh, Mohamed Badiane mi nga xamante ni tey mën naa ne su ma déggee papa papa ju bari sax moom moo tax parce que mën naa ne association bi xaaj bi yëpp samay doom lañu xama te yàlla ak moom moo ko waral comprendre yëg-yëg bu réyéeree lañ ci am di ñaan yàlla rek yàlla may ñu fan wu gudd ak wér ba ñun ñu fi teew ñëpp kenn bañ a manqué ci barki yonent yàlla Mohamed ñu àndaat ci ak waa Elvision Média beneen anam bu gën a kawe kawe ci barki yonent bi macha allah yéen a ko tey ñu ñëw fekk fi li nga xam ne moom moo fi xew jaruñu leen koy nettali euh, di sant ki nga xam ne moo nekk presse ki nga xam ne luy njaag rek moom mooy njaag nekk suñu mbokk ki nga xam ne ñoom ñoo bokk euh, lu ñuy liggéey nee naa leen saa su ne nii laa koy defee rek ngeen ànd Sister Zeyna la puissance nee naa damay tàggatoo rek ba beneen yoon ba ma jërëjëf